ndaje bu am solo la parce que tay xam ngeen ne ministère bu am fii si Sénégal euh, am nañu ben organisation bo xam moy mooy si ministère bi dafa am cellule genre genre ak équité ministère d'éducation nationale nak tay lañ koy installer wax dëgg yalla ñu ngi ci liggéey bu yàgg ñun ak suñu partenaire yi tay signé nañ ay convention ba association ça veut dire que liggéey bi tay la commencé waye au niveau institutionnel il fallait que tay ñu tok installer cellule bi mais di wax rek li am solo moy que éducation des filles lu am importance pour nous. wax que yalla Sénégal am lu parce que la société, nga enseignement primaire nga enseignement élémentaire moins secondaire partout où munti dem le nombre de filles le pourcentage moins ëpp garçon donc lolu sant yalla et deuxièmement 2011 nous avons eu ñoom postes de responsabilité filles ministère bi 1 pour la 2020 nous avons eu 18,8% pour wax leen rek ñu ngi si ay jël nañu ay décision pour que loolu mën a installé wu mais le fait que ngeen déglu partenaires yi wax partenaires financiers techniques yi wax responsables yi wax élèves yi parents d'élèves yi wax pour wax que en tout cas genre éducation des filles accès des filles ay maintien des filles lu une importance pour le système éducatif sénégalais donc loolu moo taxoon tey ñu organiser cette rencontre Je félicite tous les acteurs di leen remercier le fait que ñoom ñëw fii ànd ak ñun si journée bi.